Thank you. Thank you. ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës kuréel gi ëmb liggéeykat yu aéroport Léopold Sédar Senghor jàpp nañu amal doxub ñaxtu juróom-ñeenti fan eh, ci weeru octobre ngir yëglu la nu bëgg nag mooy ñu yóbbu leen eh, ci aéroport Blaise bu Diass mi ñu war a daloo loolee war a nekk kon juróom-ñaari fan ci weeru décembre tey ci suba nag xëy nañu amal ndaje mu yaatu ci wàllu woowee centre bu Dabo buñ ci taxawul eh, ca guuta jëm ndax daamar yi a yàpp màggat na ba jéggi dayo naka noonu liggéeykat yee nee nañ amuñu nag këyit gu wóor gu mën a ñoŋal eh, seenub eh, nekkin ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu taxaw ci jafe-jafe boobee nga xamante ni centre ba maa ngi koy eh, jànkonteel Thierno Bocoum mi jugee ci parti réew mi Oumar Sarr mi nga xamante ne nag moom mooy coordonnateur kon ñi taxaw temm ngir defaraat parti bu réew mi nee na nag lu ni mel moom mi ngi koy naqarlu waaye nag mu teg baaramu tuuma mooy Idrissa Seck mi docteur Babacar Mar mi bokk ci parti bu réew mi ne wax ji nag amul dara lu leen ci yëngal ñoom ndax ñoom fa ñu féete ñi ngi des ba tey seen ginnaawu njiit tàggat yaram daan ci àddu ak sunu gaynde yu Sénégal ñoom nag fi mu ne tàggatu nañu seen def entraînement bu njëkk fële ca cab Vert ngir waajal nag seen jongante seen diggante ak cab Vert lay doon loolee war a yemoo kon juróom-ñaari fan euh, ci weeru octobre jongante boobee kon bokk ci éliminatoire yu mondial ci atum 2018 mbokk yi ponk yaa ngi nii yaatal léegi léegi. jaa ngeen jëf ci ànd beeg euh, télévision Futur euh, Média ñu euh, tàmbali ko ak kuréel gi ëmb liggéeykat ya nekk fële ca aéroport Léopold Sédar Senghor nee nañ nag dinañ amal ab doxub ñaxtu juróom-ñeenti fan lay doon ci weeru octobre ngir yëglu la nu bëgg rek mooy kilifa yi bàyyi leen xel yóbbu leen nag ci aéroport Blaise Diagne bi nga xamante ni war nañu ko daloo juróom-ñaari fan ci weeru décembre tey nag xëy nañu amal ndaje mu yaatu ñoom liggéeykat yooyu di ca wax rek li nga xamante ni mooy seen jafe-jafe Biram Diouf ci leeral la seen assemblée générale bi di am gannaaw ba njiitu réew mi Macky sàll jëlee kon ndogal sant gouvernement bi mu jël matuwaay yi mat sëkk ngir inauguration aéroport international ak it liggéey yi ñu fa war a door loolee yëpp yemb nag ci juróom-ñaari fan ci weeru décembre liggéeykat yi jàpp ni matuwaay yi kilifa yi war a jël bokk na ci seen i tawat ñu àndi ci saafara muy liggéeykat yi nekk ci plateforme Léopold Sédar Senghor ñu yóbbu leen ci AIBD waaye entreprise yi ñu dugal leen fa. exploitation bi proprement dite. nous avons des qualification yi ñu am mooy da ngay am ay ISAGO moom la la doon wax état bi ak IATA bi couvrir le transport aérien dafay ñëw seet la ne la ndax yow matal nga cahier charge bi permettre ma jël ay avion jox la ko pour nga traité ko ndax ay bakken ñooy dugg ci avion bi léegi loolu mu lay jox noonu da lay tegal ay conditions ñu yëkkati nag seen kàddu ndax dañoo jàpp ni ay accord kat jotoon nañ kaa signé waaye jamono ji amul leen lu ci leer. ku fi nekkoon ñun ñi ñëpp taxaw kuñ ci ne da ngay jóge si sa kër am kër gu bees yaa ngi yàkkamtee dem sa kër kon lan moo tax ñu ne la da jóge sa kër dem kër gu bees nga bañ a dem kon am na lu fa ne li fa nekk nag lenn la c'est des lobbies tapis dans l'ombre ñoo xamante ne seen i intérêt moom la ñu jiital di xeex intérêt travailleurs yi nga xam ne ñoo nekkoon fii depuis dix quinze vingt trente ans d' yoo xam ne tey bu ñuy tudd aéroport bi ñoom ñoo tax. di waajalit ab dox ñaxtu juróom-ñeent fan ci weeru octobre gi ngir jébal ab mémorandum kilifa yi. ba tey ñun ñu ngi ci cadre lutte bu civilisé parce que loolu la ñu xamee sénégalais loolu la ñu bëgg a def bëgguñu def ay outrage bëgguñu def dara donte nag mën nañ ko de mën nañ ko bu baax. ndax lan boo nekkee si dëkk boo xamante ne mattaate moo fa xew boo mattaatewul tam bu la neexee nga siiñ ñu xam ne am nga ay bëñ tey moom lañ def nii ci biir siiñ boobu dinañ continuer aussi def marche bi lundi dem démarrer aéroport ba ci Almadies sous-préfecture Almadies pour remettre ko mémorandum liggéeykat yi nekk ci plateforme bu aéroport Léopold Sédar Senghor am yaakaar ni nag seen tawat yi dina am saafara ngir kat AIBD doon aéroport gu mag goo xam ne dina dëppook yi nekk ci àdduna si Mame Birame Diouf ñeneen ñi ami tawat muy centre Talibou bu nee na nag buñ ci taxawul centre boobee dana tàbbi ca guuta la ko waral daamara ya nga xamante ni moom moo war a yóbbu ndongo yi ak di leen indi màggat na ba jéggi dayoo liggéeykat ya tamit amul benn këyit bu ñoŋ boo xamante ni ni am nanu ko buy dëggal seenub euh, nekkin ñoom nag ñi ngi sàkku daal ci kilifa yi ñu euh, gestu leen tey nag janoog nañu taskatu xabaar yi leneen lañu wax mooy àjjuma suba bi ñu bank seen yoxoo ci liggéey ba Aminata Mbaari Sow Pape Sangone bërëb bile ay xale yu amee laago lañ fi jàngal ñu ngi fii ci benn ci bâtiment yi nekk ci centre Talibou Dabo Talibou Dabo nag bu buñ ko waxee mooy centre bi ñuy dalal xale yi nga xam ni dañoo amee laago. parce que jël aussi ay bus ya nga xam ne tey jii da ngay xool day daw ba mu yàgg frein yi di lâché vraiment kooku euh, ku dee vraiment bëgg nga. Euh, sa réew waroo jël xale yu mel nii di leen teg ci oto yu mel nii yéen ñëpp war ngeen mën a xool oto yi ñu ngi noonu lépp gaare waaye ci biir centre boobule jafe-jafe yi bëri na jumtuwaay yi am na yoo xam ne matul loolee waral ñi fa liggéeyee am jafe-jafe yu rëy ngir mën a toppatoo xale yi ci nu mu waree. mais amuñu ay classe parce que tey jii bâtiment yi ñu jël euh, dugal ci xale yi boole leen ñi nga xam ne ay euh, ay ay laago lañu ñii dañuy am ay crise épilepsie. bu weesoo njàngale bi ñuy amal foofu lee ci centre Talibou Dabo xale yi fa ñëw tamit dañ leen di faral di defar yenn faj. waaye fi mu toll ni nu jàpp ne jafe-jafe yi bëri na ba année scolaire bi sax mën na am mu am tolof-tolof ngir tàmbali. s'il y a pas le délai et l'efficacité euh, et euh, des accords euh, comme demain nous allons déclencher 24 heures euh, de grève renouvelable si les autorités nous donnent pas vraiment euh, oui, une satisfaction nous allons continuer lii nag di beneen assemblée générale bi liggéeykat yi di amal ñoom ñuy woote wallu ñu jàppandi ni bi war na leen a gën a déglu su ko defee ñoom seen i jafe-jafe ñu mën kaa régler bokk na ci jafe-jafe yooyu nag moo ñu bëri ci ñoom ñu daal di leen régulariser maanaam jox leen ay contrat waaye tamit ñu eggali liggéey bi nga xam ni tàmmali nañ ko mat na léegi ay at Aminata Mbaare Sow nañu waxee jafe-jafe yooyu ci centre Talibou Dabo muy daamar yooyu nga xamante ne nag euh, màggat na euh, ba jéggi dayoo loolee sax nee nañ boo mayul mën naa gàllankoor kon euh, njàngale ma foofee ca centre bu Dabo njiit la nag ma ngay tàllal loxo bu weesoo kilifa yi ñi nga xamante ne sax nag bàyyi defal yàlla lañu ñu teewlu Issa Tall Diop ci micro Aminata Mbaare Sow. déjà ministre dafa waxoon service am yëpp nañ ñëw taal bu daabo xam problème yi pour ñu régler problème yi définitivement bi mu wooyee service am yëpp directeur général de la santé jiitu ko ñuy gérer recrutement dañoo ñëw ñiy gérer infrastructure ñëw ñuy gérer communication ñëw wardage ñëw pratiquement tous les services du ministère ak DS ñoom ñëpp ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee problème mu taal daabo yëpp ñu toog ak personnel taal bu daabo ñu waxtaan si pendant des mois daat koy tëgg statut bi tamit ci la bokk tëgg ko ci benn document actuellement document boobu mu ngi koo cabinet mu ngi au niveau du ministre léegi taal ministre euh, actuellement dañ am ministre de la santé bu bees day soog a ñëw mais quand bi mu ñëwee bindaat nañ ko pour fàttali ko document boobu nga xam ne defoon nañ ko di ko ñaan pour ñu passer à l'action euh, déjà hier bi mu yëgee yenn problème yi problème courant yi euh, jóg na ci carrément pour ñu teel ko régler léegi problème salaire également tey cet après-midi dinañ commencer fay salaire yi ubbi tey jàngi tey euh, ñu dañ ko def daaw def naa ren tamit dinañ ko def xëy na du mel comme ni ñu ko bëggee waaye nag gannaaw enseignant yaa ngi fi liggéey matériel didactique yaa ngi fi li ñuy liggéey ñiy togg a ngi fi chauffeur yaa ngi fi seulement oto yi moom am na yu paan te déjà oto yu bari dañu màgget mais malgré tout def nañ benn révision léegi nag am na oto yoo xam ne dañ commencé dem mais am na ñoo xam ne malheureusement duñ mën a dem ci loolu également ñu xam ne état mënul def lépp ni pour futti seen antenne yi pour laaj toutes les bonnes volontés ñaanaat Dakar dem dikk ñaanaat seen bus et consort pour ñu jàppale centre bi jàppale xale yi handicapé yi ndax ñoom seen dund ak seen njàng ak seen prise en charge dafa dépendre ci oto ñu dem ba diwaanu Sédhiou euh, jaay nga xamante ni ay jaaykat la ñu te lale ca corniche ba euh, féete ca marché centrale ba ñoom nag àppal nañu leen euh, nañu fa jógee la ñu wax ci barab yooyu ndax foofee dañu faa war a amal ay liggéeyu canalisation ñoom nag commercant yooyu ne du ca dal balaa ñuy def loolu nañ leen wutal fu ñu nekk ba noppi mairie ba nag door na waxtaan ak jaaykat yooyu ngir xool daal ni ñuy fexe rek bam saafara ci mbir ma Bakary Konté commerçant yi nekk fii ci diwaan bi daal di occupé yoon boo xamante ne mu ngi ci corniche bi ñoom nag fu mu nekk nii dañuy mere loolu autorité municipale yi. ñun ñooy waa marché waa rue El Malick de Sédhiou yaakaar naa ne jàmm ak salaa moo ñu fi indee ñu ñëwuñ fii pour leneen waa dama yaakaar ne. waa waa waa waa mairie ak waa biir marché décision bu ñu jël yaakaar naa décision bi nga xamante ne décision bu yenu maanaa la defe naa ne yow ay gor toog di jaay di ut lu ñu am nga xëy un bon ne leen dañ leen di jëlee fii te bu ñu fi jëlee fii dootu leen fi nekkaat. ñoom nag ñii ñaan maire bi mu daal di leen jàppale daal di leen casé. ñun dañoo ñëpp daan suñu doole marché bii moo yor Sédhiou qu'on se dise la vérité marché moo yor Sédhiou kon fii ñaata nit a fi nekk ñi nga xamante ne ay père de famille lañu ëpp na cent et quelques personnes yi ay père de famille la am na loo xamante ne tey xoolal bët du yenn waaye xam na lu bopp attan am na loo xamante ne ñun duñ ko nangu pour muy leer wax nay leer yaa ngi may dégg gis nga Abdou man xam naa ko bu baax Abdou Diop doon na nit ki nga xamante ne ñii décision bu ñu jël Abdou Diop yëgu ko tey yëgu ko ëllëg ndax Abdou Diop tey boo gisee ñu ñu jox ko réew mi mu neex ñu c'est parce que dañoo xam jikkoom xam xolam Abdou Diop du yàq doomu aadama. premier adjoint au maire di Abdoulaye bu buñ ko laajee moom lii la jot a tontu. dëgg bi mooy nii nekk dañu am euh, caniveau boo xam ne bu Eiffage war a jàppale commune bi pour def ko. xam nga Eiffage dafa war a def yoon euh, rond-point Jules Kounda wàcc ba euh, angle sud de la banque CNCA mais dañu gis ne que su caniveau bi yemee foofu kon ndox yëpp bu jóge Sédhiou dina tuuru ci kaw commerçant yi kon loolu la dañu dem ñu jël décision ne dinañ jàppale Sédhiou euh, commune Sédhiou pour que ñu def caniveau bi ba mu wàcc ba fleuve Casamance. Abdoulaye Coly di ne am na sax ndaje boo xamante ne dinañ ko amal ak acteurs yi yëpp pour mun a daal di am benn solution ci problème bi. ko waxoon nañu ko ci ponk xibaar yi ceex Thierno Bocoum mi jugee ci parti euh, réew mi Oumar Sarr mi nga xamante ne nag moom moo jiitee euh, kuréel gi taxaw ngir ñu defaraat parti bu réew mi ne lu nu mel nag euh, metti na ko ba fa metti yam waaye nag ñoom jàpp nañ ni rek lu jik njaak sa Seck mi jiitee parti bi la docteur Babacar Mar mi nga xamante ne nii ci parti bu réew mi moom la féete nee na nag coow li coow li ñoom dara soxalu leen ci li leen yitte rek mooy des ci seen ginnaaw njiit fas yéene nag ànd ak ba géej ga fer Alassane Ba Younous Ba. keneen ku ko biir parti réew mi Thierno bokkum ex porte-parole bi ne par convenance personnelle docteur Babacar Mar jàpp ne nangul nañ ko ko. nit ñi ak débattre ci ñi nekkul li am solo trop si ñun li am solo mooy lii nga xam ne mooy jafe-jafe yu askan wi am loolu mooy le grand combat ci ñun ñu ngi ci te duñ ci jóg le frère euh, camarade euh, l'ami Thierno Bocoum a quitté la partie par convenance personnelle ñu nga koy respectel mais ñun tamit ñun dañuy des dans le parti par convenance et super convenance personnelle. bettuma euh, man mi sax ginnaaw investiture yi donte sax gëj nañ déggante lu tollook ñaari weer. jotoon naa jël sama téléphone woo Thierno Bocoum bokk nekkoo bu mu def lii mu def nii. pour ndax yorinu parti réew mi dafa am problème buñ ko laajee ñenn ñi nag danañ ne waaw wante pour Omar Sarr yorin sax amu ci ndax kii di Idrissa sa géré gerewul dara moom mi sax mu jàpp ne mooy problème mu parti réew mi. je xam naa ni Idrissa Seck nekk na nit ki nga xamante ni bëggatul dara ci parti bi te amul honnêteté wax ko. amatul benn euh, motivation pare na ci yàgg na te euh, nangu ko wax euh, ñi nga xamante ni am nañ yaakaar ci moom ba léegi ma wax la am na ay leader yi nga xamante ni dañu yaakaar ne ñoom leen tax a toog ci bopp parti politique yi mooy ñu am destin présidentiel te du ñëpp ñoo mën a nekk président qui pourrait les amener à rester à la tête d'un parti. li mu yore parti bi daal na xel parce que Idrissa moo jël lépp dénk ko ñëpp Idrissa jëlul dara ñëpp ñi nga xam ñu ngi génn lu ñu ci parti bi ñoo lépp di rendre compte rek lañu doon def Idrissa rendre compte kooku kañ joxe na lépp Idrissa dafa demoon bi amatul benn pouvoir dans le parti ndeysaan ndax mbaaxam ak esprit de partage am te wane na ko ci Sénégal donc parti bi amul problème léegi nag politique moom ñaar yi ñoo ci nekk soit da ngay politique par ambition wala ngay conviction. ñaari camp nag taxaw biir parti bi Omar Sarr fas yéene convaincre ñi fare ci président réew mi ngir ñu taxawal approfondation. a ñun am nañu chance chaque jour dana am ko ñu woo di ñu wax yéen a am dëgg. Euh, ñu ngi liggéey te am na sax ñi nga xam ne dañu bàyyi ko PDS bëgg a liggéey ak ñun bu ñu toppee rythme bi nag ñàkk déggoo wante itam ay série d'émission biir partie yu fare ci kujje politique bi président Macky Sall moo ci nara bénéficié wu ki fare ci ku jëkk politique ca Mauritanie di da abet moom nag euh, tey jii am na lu mu waroon seq kon ak Seydi Gassama jano seq taskatu xabaar yi ndaje moomee euh, moom opposant boobee mujj la teew Seydi Gassama bu Amnesty International euh, fii ci Sénégal ne nag loolu dara waralu ko lu dul wàllu diplomatie ndax xëy na la muy bañ rek mooy li ñu naan diggante Sénégal ak Mauritanie dafa ñagas loolee nag kon gën a yokk ñu gàkkal deru Sénégal xëy na loolu la cay teew teewlu Seydi Gassama ci micro Cheikh Hassana Fall. waaw conférence bi Biram waroon na fi teew tey waaye Biram nee na euh, euh, euh, daf ñu jox benn message pour que ñu jottali ko journaliste yi ak askanu Sénégal nee na conférence bi mu bëggoon def ak lépp li nga xam bëggoon na ko fi wax dafa décidé n'est-ce pas pour mu mu reporté ko ci kanam parce que am na information yu mu am moom Biram information am ñu jóge na Mauritanie ne nguuru Mauritanie dañu bëgg utiliser conférence de presse bi pour andi ay jafe-jafe ci diggante seen relation ak Sénégal ñun tamit nguuru Sénégal ah deful pression suñu kaw pour ñu bañ a organiser conférence de presse bi waaye wax nañu ne na ngeen xalaat bu baax ndam mbir mi et suñu voisin mun na ko gis mun na ko gisee neneen te su ko gisee neneen mun na ànd ay jafe-jafe diggante Sénégal ak Mauritanie. ñu wax ci rajo yi ak ni ñu tàmbalee bari ci Sénégal anam ya ñu koy joxe ndax mooy tax léeg-léeg jafe-jafe di am eh, ci wàllug déglu bi muy onde yu faral nag di jaxasoo saa su ne nga jàpp rajo bi di dégg beneen rajo loole nag tax na ba tey ji rajo yu bari eh, di kalaame bokk na nag ci rajo Futur Média njiit la moom dem na kalaame waa ARTP jafe-jafe yi nga xamante ni nii kon eh, mu ngi koy jànkonteel rajo bi ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy déglu ba ci nag annonceurs yi ngi faral nag di kalaame saa ne ci lu ni mel loolu nag yemul ci groupe Futur euh, rajo Futur Média ndax mbootaay gi nga xamante ni moom mu ëmb itam rajo communautaire yi ña ngay kalaame ci seen bopp Cheikh Tidiane Dione. benn poste ñaari rajo yu ci waxandoo liñ koy nemmeeku ci capital bi bari na lool xeetu désagrément yooyu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy auditeurs yi léeg-léeg ñoom dañ koy naqarlu ñii di annonceurs yi ñoom. di def seeni i réclamation ci brouillage bi ñu mel rawatina ci station rajo yi. moom nañ ko en tout cas waxatuñ ci di dem dem ci ñu mel noonu parce que faral di am daal mais à chaque fois bu amee rek dañuy dañuy wax euh, yi nga xam ne dañoo bokk ci réseau bi ñoom la ñu bind ARTP ñoom ñi nga xam ne ñoo am sañ-sañ euh, di saytu. Euh, auditeurs yi dañuy kaas dañuy woote di ñaxtu am nañu seen droit la. annonceurs yi dañu dugal si xaalis ci rajo yi tamit loolu daf leen di métti parce que dañuy mën a moment dañu mën déglu si yenn yenn goxu xaan yi. directeur bu RFM daal di génne document boo xam ne day firndeel lu ni mel rek daloon na leen. bindee courrier RTP bii courrier bi ñu bind RTP la parce que dafa mel ne rajo bu nekkoon ci VDN bi bu ñu doon boo boori VDN bi foofu yëpp kenn du ko jëm ARTP defar ñu ci technique bi reconnaître que effectivement rajo boobu dafa ñu doon brouillé. ñu ñawaat ci loolu. seetlu gi moom mooy ay émetteur ak ay dipôle yu bari daanaka ci benn immeuble lañ nekk fii nii si Ndakaaru. mais xëy na boo gën a kaw Ndakaaru pour le moment télé yi rajo yi bëri nañ fa te ku nekk tamit da nga installé foofu ci kaw xëy na quelque part nu mu la neexee te day am yenn saa sax émetteur yi day am interférence seen biir parce que boo amee espace bu ndaw émetteur yi bëree fa. forcément day am day am benn genre neutralisation des ombres yu fay am. phénomène bu ni mel soo demee sax ba ci biir réew mi mun nañu sax jéggi na dayoo rawatina ci yenn région yi nga xamante ne ay promoteur ñoom ni ñu envoyé lii di band FM bi te sax lii di cahier de charge bi. maanaam mun nañ ne respecté wuñu ko benn yoon. dara ci nekk ne ne ne communautaire parce que moomal nit la mais du moom moomalu askan du lu euh, association mais moomalu nit la te loolu boo xoolee loi bi dafa violer même loi bi nga xam ne mooy war a joxe ay ni ñuy joxe ay fréquences loi bi def ko def ko def ko. ñu koy jaajëfal bu baax a Cheikh Tidiane Dione fii ci Ndakaaru nag door nañu fi ab forum ci wàllu euh, koom la mu boore ay opérateur yu yëngu ci wàllu koom yu fekk baax fii ci Sénégal ak yu bàyyi ko ca réewum Gambie euh, seen lim nag toll na ci ñaari euh, téeméer la ñu bëgg nag mooy wàllu jëflante gi ci koom gën a ñoŋ waaye tamit ni ñuy fexe itam marché yi nga xamante ne dañu koy am ci wàllu koom ñu mën a fexe rek kon ba am fa ay place yu baax am ca doole bu baax a baax Fatou Bintou Konté ci leeral. tey jii ci alxamis bi la door fii ci Ndakaaru li ñuy wax premier forum économique entre le Sénégal et la Gambie mu di benn ndaje boo xam ne ñii di opérateur économique yi ñoom ñoo ko amal ngir a taxal diggante bi am ci suñu voisin bi nga xam ne moom moo di Gambie. business moom mooy renforcer dëkk yi boo xoolee Europe pendant lu mat trois siècles dañ doon guerre rek mais à partir de 1945 ba ñu defee ñaari guerre mondiale France ak Allemagne dañoo wax nañ changé. au lieu bu bu amee doole song la boo amee doole song ma nañ def business parce que business day day boole ñaar ñaari dëkk c'est pourquoi ñuy wax homme d'affaires Sénégal homme d'affaires Gambie nañ ñëw xool nu ñuy renforcer intégration entre Sénégal ak Gambie. assise économique yi nag dina tax ñaari dëkk yi am ay opportunité yu am maanaa ci wàllum investissement ak tamit ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum lëkkaloo entre ñi nga xam ne ñoom ñooy public bi ak privé bi. Sénégal ak Gambie seen àndandoo du lu ñu war a jël comme option. xaw ma lan la ñuy wax option wolof waaye doo loo xam ne dañ ko bëgg rek waaye la si ñoom lu war lu il faut ñu def ko pour mun a naat ñu gën a mutualiser suñu effort ñu gën a maanaam boole li ñuy jëf Sénégal ak Gambie euh, xam nga Sénégal ubbi na lu ñuy wax ay zone économique spéciale Gambie nee na bëgg na ñëw seet nan la Sénégal def ñun yàgg yàgg nañ si tuuti waaye léegi la ñor léegi la affaire bi processus bi atteindre sa maturité wante dañuy faral di nemmeeku yenn jafe-jafe yi ci wàllum yenn réalisation yi surtout nag lu jëm ci wàllum jënd mi ak njaay mi ak li ñuy wax libre circulation. ñoo xam ne ñu ngi ci frontière bi ñaari fan ñetti fan di xaar douane bi di xaar papier bale loolu lañ war a génne diggante bi ak Sénégal parce que tey su dëkk yi munee dem kanam foog entreprise yi mun a créer ay employement créer ay liggéey pour xale yi ak ñeneen yi mun see njëriñoo. su loolu amul dëkk yi ñaari dëkk yi duñ mun a dem kanam. ndax soo demee ba nga xam ne nii déplacé wu ci diggante ñaari réew yi day gën a cher day gën a jafe boo fi jógee jëm Europe kon loolu lu ñu war a régler la ndax gis nañ ne boo jëlee woon benn conteneur fii ci pooru Dakar ba ko yóbbu port Gambie moo gën a cher boo ko jëlee woon port Dakar boo ko yóbbu France. bile forum nag ñoom jàpp nañu ne dina gën a rataxal diggante bi ci ñaari dëkk yi ndax acteurs économiques yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ña nga doon woote li nga xam ne moo jëm ci wàllum frontière ci ñaari dëkk yooyu ñu gën koo la office de lacs ak cours d'eau yu euh, Sénégal am na njiit lu euh, bees Alioune Badara Diop euh, lay wuyoo delsi nag nag ci liggéey bi nga xamante ni nii moo koy xaar liggéey boobee bokk na nag ci fexe kon askan wi mën a jote ci ab ndox naka noonu it lu soxal tamit lag yi daañu ci taxaw bu baax a baax ñu teewlu ay kàddu maako seenu Diop. pour que structure yu nu war a teg yëpp ñu teg pour mën a jël loolu jël toppatoo ndox yi en charge ndax suñu dëkk yi. xam ni yenn niveau jàng eggagun fa suñu développement comme ni ko président gisee te bind ko ci PSE mi ngi mën a nekk kës li ñuy wax secteur primaire ay bay ay sàmm ak yu mel noonu te secteur yooyu mënul dox te amoon ndox moom moo tax euh, mën nañu wax kontaan trop ci gis-gisu président la république ba mu créer tey benn structure buy gérer ndox yooyu yépp lépp luy yoonu ndox ci Sénégal te incha allah aussi engagé wu avec personnel bi ñu fi fekk pour que ñu lever le defi dans les meilleurs délais te aw ma si inquiétude ndax bi leen denkee lac de guerre si jamono yu gàtt défi bi relevé nañ ko. donc tey suñ ko leen denkee cours d'eau yi Sénégal yëpp ndax lac de guerre mu ëpp si cours d'eau yi yi fi nekk intérieur ak personnel biy ñëw aw ma inquiétude aw ma jaaxle que incha allah défi bi défi bi daan ko relevé. mangook ngoog euh, kon mu nekkoon euh, Ousseynou Diop doon taataam ay ay kàddoom ca diwaanu euh, ndax géej ni ñu koy waxoon ci ponk yi Sénégal nag di waajal jonganteem diggam ak Cap Vert lay doon loole nag juróom-ñaari fan ci octobre la. Euh, jongante boobe nag bokk kon ci éliminatoire yu euh, coupe du monde 2018 ñu fas yéene ko amal ca Russie euh, sunu gaynde nag def nañu seen tàggatu bu njëkk ca Praia Cheikh Tidiane Diawo ma nga fa bu dee kon mi mi ngi ci buumu jokkoo gi Cheikh Tidiane Diawo. Euh, kon mu mel ni am na ay jafe-jafe tuuti ci bu mu jokkoo gi Cheikh Tidiane Diawo ñu waroon kon euh, jokkook moom foofee ca Praia mu del si rek kon ci suñu gaynde yi nga xamante ne nag kon ni ma ko waxee def seen tàggatu bu njëkk di waajal nag seen diggante ak Cap Vert euh, du ñàkk ngeen am ko moom Cheikh Tidiane Diawo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ci nasaraan yi jaa ngeen jëf mbokk yi fii la ñuy tàggatu yéen yéen ñi fare woon ci machine bi cant ak ngërëm ñeel leen ci kanam tuuti Fatimata Ba dina fi teew faram leen xibaar yi ci nasaraan jaa